Euh, salaamaaleykum man maay major Samba Gune Ndiaye nekk 12e compagnie di commandé sangu si pour parcelle waaw monsieur ñu gis ni tey dafa am benn lakk-lakk bu metti boo xam ne am na fii ci unité 13 ñu bëggoon xam yéen en tant que sapeur pompier yi fi nekkoon lan moo xew. Euh, bi ñu toogee ba ay 9 heures minutes dafa am benn euh, ku woote suñu kaw cest à dafa am benn oto buy lakk léegi après ci lañ envoyé benn engin bu jógee parcelle nga xam bu ñu bokkul ak oto buy lakk nekk ci wala mu nekk ci léegi bi premier élément bi ñëwee euh, constaté na que effectivement ay oto ñoo nekkoon ci benn garage après oto bi lakk commencé taak euh, jëmale ci yeneen oto yi mu ba pare amoon beneen risque bu ci nekkoon parce que dafa am benn atelier menuiserie bu mu taxaloon ak benn magasin stockage bu ngooñ ñëpp xam nañ ne ngooñ ak menuiserie bant yi fa nekk noonu bu ñu teelul jël suñu matukaay propagation bi dafay gaaw day jóge ci oto yi dem ci ngooñ mi wala mu jóge oto yi dem ci menuiserie bi ak euh, copeaux bi nekk boobu suy de bois yooyu donc day day nekk loo xam ne day jéggi dayoo. Mm-hmm. mais alhamdulilah bu premier élément yi ñëwee def na écarté li ñuy wax def na li ñuy wax écarté propagation. lan la maanaam limité foofu ci fi mu nekk. lan lañ mën a xayma ci ay dégâts. bon ci ay dégâts alhamdulilah bi renfort bi ñëwee jógee douzième compagnie ak pars ak ak euh, Guédiawaye euh, mett nañ en œuvre ay lance écarté propagation yi mais jàpp nañ ni ñeenti oto ñoo ci jot lakk ba pare mbaar mi jigee woon tamit euh, oto yi. comme dafa am seng seng bi dafa tàng mu tàngal ngooñ mi ngooñ mi tamit tàkk donc am na quantité ngooñ bu tàkk am na quatre oto yu tàkk mais aussi menuiserie bi tamit seen stockage bois bi am na lu ci jot tàkk mais du lépp moo tàkk. waaye daal amul ay perte de vies humaines wala yooyu noonu lépp amu ci. déedéet alhamdulilah amul kenn ku ci ñàkk bakkanam amul kenn ku ci gaañu tamit donc dégâts daal c' est des c' est merci beaucoup.